te bu ñu ubbee téléphone yi ku ne prospère mu ne tey mu dee jeune ne pas kon dee leen tëj téléphone yi. bàyyi jàmbur mais soxna si. dafa wax lu garaaw. am waaw lu am ba pare garaaw bon. waaw ma ma la ko lu am ba pare garaaw. Mm-hmm. su fi wax na ko léegi waxtaan aussi wax dëgg ca la. su fekkee ne magi démb fexe woon nañ ba yéen ñii ngeen tegu fa ngeen war a tegu. kon xale yi tey jii bu ñu fa teguwul kon yéen yéen a échoué c'est ça la vérité dëgg moo neex yàlla donc ku dee yàgg sa bàmmeel dama ne. jigéen fi muy ba maa ngi ñëw jigéen fu jaar ba doy. maa ngi ñëw Sophie maa ngi ñëw yaay moo doon wax jigéen moo doon wax sër moo doon wax. Mhm. li mu wax ci xolom la ko tibbee mhm. lu mu dund ci société bi la. Mhm. yaay yi démb suñu fexee ba ñoom ñii tey tegu fi ñu war a tegu nekk fi ñu war a nekk. yem fi ñu war a yem def li ñu war a def kon goney tey suñu rëccee ba moom mu mën a toog en tant que yaay na quatre-vingt-quinze pour cent doy nañu waar kon ñoom yaay yi tey ji ñoo échoué. Mm-hmm. et je pour quoi ñoom ñooy wax ne ñoom ñoo ngay àndal nit ñëw xool ko ñu xool ko si xool si ne la yow ki nga àndal nii kew kii nga ma yéene yow wala lii laa liggéey sa kër baay wala lii mooy sama sama àqu mbootu yow mm-hmm. donc c'est des termes c'est des c'est des remarques yow xam ne mooy tax effectivement. bu ko defee ci ndaw nga tàmbale xeet doomu aadama ndax li ngay dégg. ma yeggale. waaw sànq mënoo ko woon wax bi ma bi ngeen di wax. baal ma ko sama bopp kii moo may dagg oh. may dagg donc ma wax ne. <laughs> gaa gaa yaa ngi toj. ma wax ne ma wax ne. Euh, loolu li mu wax ni en bon français. je hmm. di que c'est un aveu de taille. c'est un aveu de taille. ñaar ñoom euh, comment dirais-je yi. yaay yi tey nii ak ci ñi ma ko wax wane nañ ñoom seen seen tële ci goney tey merci ba tey waa ba tey ba tey d'accord mais mais mais encore mais encore une fois waaw maa ngi encore une fois néew na néew na kër gooy dugg nit ànd ak ku koy bëgg papa di ci def yenn observation yi bu ñu waxante dëgg rek yàlla waaw yenn yi yaayi la yow yow yow tuuti woo bët yow lii laa liggéey sa kër baay yow lii sama ak mbootu yow lii lii ne genre terme la yoo xam ne ñoo koy jokkalanteeg seen ay jigéen yu toll ci <laughs> bëggante c'est ça la vérité aussi c'est ça la vérité mmh. n'est-ce pas donc ma wax ne ay laaj ko ñaata la lay andil premier cadre waaye du ñëpp ñaata lay andi waru gar waru d'ailleurs d'ailleurs jigéen góor heure bu tolloo ci maye doomam ñi nuyu si ñi nuyoo si mmh. ñi nuyoo si mmh. bu ñu deful ndànk bu ñuy dem jabar la ñuy yóbbaale heure bu ñuy yóbbaalee jabar yaay di ci tonnet ne ko alaaji yaa ma iñaane alaaji yaa ma iñaane ñii ñëw salaamaaleykum maaleykum salaam nga may leen xale bi nii mel ne mel ne kuy asaalu asa bombe man lii laa fi liggéey man non du daw responsabilité exactement naa maa ngi ñëw yéen dangeen ngeen di jaawatle daw responsabilité ak farata mhm. góor ci farata lay dox doxul fowul fowlewul jur naa doom toll na ci denc ko gis naa ko ko bëgg rafetlu naa jikkoom encore une fois ak diineem bàyyi ci xel dama koy mayee fañ ma ko fañu ñu waxtaan see. Mhm. yaay nag moo ci këpp kaani su ngeen demee jàpp ne moom effectivement. li mu fi liggéey yow fayoo ko ko. mais li ma bëgg a wax rek. Mhm. en tout état de cause mooy. gu góor ki nga xam ne mooy yónnee di maye. Mhm. dama ne gis nga euh, xaalisu moodu moodu warul génne warul gaaw a génn ndax nañ koy amee mooy metti man xam naa ci dara c'est vrai que nekkuma fa sax yàgguma fa. n'est-ce pas mais am na lu ma si jot a dund loo xam ne xam naa ne am bam am am ba yombul lu ne la ñuy daj lu ne. tu vois ce que je veux dire. am naa ci xarit boo xam ne su duggee géej été ba génn du ma ko xàmmee ndax ñuul ndax jeex. pendant deux mois trois mois. ñi may wax xam nañ li may wax. loolu génn ba warul yomb génn ba warul yomb parce que tout simplement métti na métti goo xam ne ak nu jamono mën a dox dox dox tey tey rek ak nu xale yi xale yi mën a doy waar mais exactement diggim yàlla moo nattoo góor yu tey ji nii di dund ci génération boo xam ne nii ñu ci ëpp effectivement comme ni ko yaay waxee dañoo doy waar mais loolu tax góor wala xoolaat boppam. Mhm. góor wala xoolaat taxawaayam ki may bëgg mooy kan. Mhm. c'est vrai que dépassé nañ ay jamono tànn ci ay jëkk ay jaba ay jëkkër ay ay tànk ay ween ay ay ay ay yooyu noonu dépassé c'est un monde révolu ça tu vois ce que je veux dire mais moo tax góor wala am nag taxawaay boo xam ne. maa man la joom man la man la man la yàlla pikiir wuti yàlla ubbil ma wërsëg ma am lay ñibbisi war a am nag nite gu ma fi dellu see mhm. yaa ngi dégg nite googu nag dafay nekk ci fan laa jóge fan laa toll ak fan laa fan laa bëgg dem mais du caaginu maa ngi ak sagaru cinq cent mille maa ngi ak un million fu xale bu jigéen nekk ma wari ko fu fu mu taaroo ma wari ko balaa ma am balaa ma tëdd ci six heures du matin cest à pour man pour nit ñu xam ne maa ngi ci vacances il faut ma takk ñaari chaîne plaqué yor ñaari téléphone loué oto boîte de nuit bu jeex ma dem ba cinq heures du matin ma dem pâtisserie ndékki doo a dem sama kër pour ñu xam ne ñëw naa vacances. <laughs> ma wax merci beaucoup pour lan la ma wax ne ni ñu ni ñu changé de wax des vacances citoyennes mhm. noonu la war a nekk euh, des vacances responsables mhm. vacances responsables mooy fan laa jóge fan laa de gis nga gis nga gis nga bitim réew bàyyi naa fa ñoo xam ne ci gaal lañ demoon ci gaal yi lañ duggoon dem actuellement nii fi ma toog di wax yow tembe tembe xamal ma seen problème seen séjour moo jeex amuñu passeport. Mhm. je te jure. Mhm. ils n'avaient pas voyagé avec un passeport. ils étaient partis en passant par la, la Libye en passant par euh, feneen ak feneen feneen. Mhm. aujourd'hui ñi ngi dans des situation précaires c'est kuy tëj seen bopp buy tëju. ñi am na sax ñu ci am koom am France ak tout mais lekk nga sax moo dul neex ndax amuñu këyit. n'est-ce pas. Mhm. amuñu passeport. Mhm. da nga demoon ci gaal waa léegi nooy ñibbisee. moo ma jaaxal. mën nga wut sauf-conduit ñëw. mais boo ñëwee wut sauf-conduit ñëw boo deful ndànk doo delluwaat. kon yow la nga risque ba nga jëloon yow dans la Méditerranée ba sa bakket nekk sa xottu gerte wala désertu Libye bi amatul sens. d'accord d'accord loolu yëpp nag nite.

dama bëgg a participer ci euh, thème ci gis-gis. d'accord amul benn problème yaa ngi ci biir ñu ngi lay déglu. allo. waaw yaa booy ñu ngi lay déglu yaa ngi en direct. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw soxna si kooka la Safia. waaw man la Safia. ça na de. ça bien merci. ça yaa ngi ci jàmm. ñuy sant yàlla bu baax. Ah, ngeen baal ma dama bëggoon participer tuuti rek. allez-y ñu ngi lay ñu ngi euh, lay déglu. man père Mbaye Mangone xaw ma. waaw moom laa bëgg a waxal tuuti. mi ngi lay déglu. dama bëgg moom mag la na def yëfu mag te xam ne plateau bi daf ko bokk ay nit na leen di may ñuy wax Safia tamit yow li nga may paa bi dafa ëpp. <laughs> lan nga bëggoon ma def yaa booy <laughs> Aïcha dem na 88 628 89 90. mënoon ngeen maa bàyyi nag ma waxtaan ak moom comme ça ñu xam exactement ce qu'elle veut 88 628 89 90 88 628 28 28 salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ bi noo def. noo def maa ngi ziar. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax. alhamdulilah ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi ziar ñu nekk ci plateau bi jëpp. ñu ngi delloo ziar bu baax a baax. waaw jëfati ba dafa am loo xamante ni dafa metti trop trop trop Sénégal. ah dafa am jigéen yoo xamante ni. waaw. ñoom bu ñu bu ñu bu ñu moyee rek ak seen jëkkër. Mhm. ñu nekk Europe coow li danaan kur. dëgg la kur moom bu moyee kenn du ko wax dara ku jigéen ki da koy baal. la nga kenn su ko gis. comprendre ma li nga bëgg a wax. naa dama ne. waaw. jigéen yi nekk Sénégal. waa ñoom bu ñu mooyee seen jëkkër yi nekk Europe. waa dañ leen di fasetaru. waaw lu ci bëri. lu góor yi mu nekk Europe fii nag di mooy seen jabar yi. parce que preuve foofu du yomb xam nga fii moom su dee jigéen grossesse mooy preuve bi mais bu dee góor doo am preuve sax ne sa borom kër fi mu nekk ma nga fay ma nga fay def. ok dëgg la mais. te li ci jigéen problème mooy góor yi takk jabar di dem Europe di leen fa bàyyi loolu moo yoon man ci gis. parce que mënoo takk nit ki bàyyi ko Sénégal. allo allo dem na ñu jël keneen 88 628 89 90 88 628 28 28 salaamaaleykum 88 628 89 90 donc on enchaîne ak waa service commercial jëli publicité bi on revient juste après la pub à tout de suite.